dali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen i kaay ñu xëyantoo yéen i kaay gi di réew mi ko di jenxëy duñu xibaar naan ñu tension politique bi nga xam ne moo am ci Sénégal ba léegi njaw ma ngi wéy di desu xam na ndax lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ak li nga xam ne keroog moo si jot a xew loolee rek daan nay firndeel ne Sénégal ba léegi ma ngi ci guddi gu bët siddigu la waaye ma ngi jëm ci musiba koo xam ne maanaam mën na ñoo xam kañ lay commencé waaye mënu xam kañ lay jeexa ndax Ousmane Sonko keroog ginnaaw bi ko takk der yi jëlee ci otom dugal ko ci oto belende daal di ko yóbbu këram moom Ousmane Sonko ca ngoon nga dafa bëggoon a dem amal ab conférence de presse ñu daal di tere te loolee dafa bokk ci salfaañi àqam ak yelleefam loolee jaadiwu la Assane Samb mooy wax ci journal bi di réew mi quotidien waaye tamit daan na ne ñi nga xam ne ñooy takk derrière am nañu sañ-sañ bu ñu jàppee ne confrontation mën naa am maanaam ñu daal jël Ousmane Sonko daal di koy ngir nag moytu lépp loo xam ne jëm na cib jàppante yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na en am ba desal élection présidentielle 2024 xibaar naa ñu tension politique bi nga xam ne jamono ji moom la ñuy laam-laamee ci réew mi loolee tax na société civile bi ñoom fas yéene ñoo teg ab plateforme boo xam ne la ñu say liggéey mooy fexe ba jàmm am ci réew mi Sénégal ba ñu dugg ci kaawa yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Khalifa Ababacar Sall moom nag nee na mooy candidat socialiste yi ba tey ci journal bii di enquête moom Khalifa Ababacar Sall nay woote lu jëm ci wàllum dialogue moom Khalifa Ababacar Sall nee na mbir mi nañu ko daal di waxtaane Sénégal di dugg ci musiba goo xam ne xamuñu kañ lay jeex Macky Sall bu bàyyee duur yi nga xam ne moom lay dóor ku jege ba pare woote ab dialogue danañu daal di toog waxtaan ak moom yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na keroog bi nga xam ne takk der yi jël nañu ko dugal ko ci seen oto belende boobu daal nañu koy xamal na ko li tax ñu dugal la sunu oto belende bi dañuy bañ ñu dóor la ab balu feta la loolee la ñuy moytu Ousmane Sonko ci biir journal bi nee na Macky Sall dafa am ay milice ay milice yoo xam ne yor nañu ay grenade lacrymogène ba pare yor ay feta nekk ci wetu policiers yi te policiers yi Le Quotidien nee na en tout cas li am ba de mi nga xam ne moo jiite Union africaine mandaam jeex na yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa El Hadji Malick Gakou nee na ak lu man di am ci réewum Sénégal élection présidentielle yi ñu mal moom Malick Gakou moo koy gagné nee na daal mooy nekk cinquième président du Sénégal waxi Malick Gakou la ma ngi ci yéen a kaay gi di Vox Populi yéen a kaay gi di évidence xëy di ñu xibaar naan ñu waa PUR ñoom nag ci week-end bi amal nañu ab mobilisation bu rëy ñoom nag nee nañu Serigne Moustapha Sy moom la ñuy jël def ko seen candidat nee nañu tamit ñaari député yi bokk si ñoom ñu teg leen loxo ñoom bëgg nañ ñu daal leen di bàyyi ci ni mu gën a ndaje moomee Ousmane Sonko ma nga foona nee na Macky Sall jamono ji jeexal na waaye nag ñun ñëpp xam nañu ne Macky ay xërëm la gëm waaye nag bu ñu ko gëmloo na ko mën ngaa gagné élection présidentielle 2024 ñoo ngi koy nax Macky Sall na waxi Ousmane Sonko la nee na bu dee ay xërëm la gëma dem ba diwaanu Inde na ko leer mbir mi mooma c'est fini julli tubaab kaddu yu Ousmane Sonko la yéen kaay gi di mi ko di cee ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye décret 2023 339 dina ko attaqué ca kanamu CEDEAO lan moo tax ak lan moo ko waral ma ngi ci biir journal bi di Rewmi Quotidien yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa waa APR ñoom nag nee nañu Ousmane Sonko amul yenn firnde ci 29 milliards yi nga xam ne moom lay wax ne Mame Mbaye Niang daf koo daal di luubal loolee moo tax waa APR ñoom jamono ji ñoo ngi tuba yul Mame Mbaye Niang journal bi di évidence xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas lu jëm ci coowul 29 milliards yi ba léegi pënd ba wuréegu la ndax am na benn pétition boo xam ne gars yi lancé nañu ko ngir nag lu jëm ci wàllum détournement détournement bi nga xam ne njort nañu ne Mame Mbaye Niang daf ko def yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na lu jëm ci vingt-neuf milliards yu Prodac yi ki nga xam ne mooy Birahim Seck daan nay gën a tëmbale gën naa xam ne mooy Mame Mbaye ci biir journal bi nee na soo muytuwulee dina porter plainte ki xam ne mooy Birahim Seck yéen kaay gi di Les Échos xëy diñu xibaar naan njiitul Pastef di Ousmane Sonko porte woon na plainte maître Pape Samba Sow ci lu jëm ci mbiri déglul leen ma Ousmane Sonko mi nga xam ne moo jot a porte plainte yéenekaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu scandale fond covid 19 yi mbir mi fan la toll maanaam déglu gi nga xam ne war nañoo dégloo ñi nga xam ne njort ñu ne dañoo sàcc alalu askan wi dañoo luubal alalu askan wi si jamonoy coronavirus bi déglu ba fan la toll ak tamit ndax Macky Sall dina bàyyi yoon def liggéeyam ci ministre am yi nga xam ne tudd ñu leen ci mbir mi yéenekaay gi de la fekk fa Pierre xam ne jamono moo nekkoon secrétaire général bu Amnesty International daal nay wax ne Macky Sall violé li nga xam ne mooy constitution bu Sénégal loolee nag haute trahison la maanaam wor bi gën a rëy Macky Sall dina ko wor askanu Sénégal bu dee dafa violé constitution bi jamono ji na ñoo wax ne démocratie ci réewum Sénégal ma ngi ci danger te gouvernement bu Sénégal jamono ji ñoo ngi ci jamono joo xam ne ju doy waar a doy waar la te nag Macky Sall ak ñi mu àndal doxalin wi nga xam ne moom la ñuy doxalee doy na waar ndax loole yàq démocratie la jamono ji jël nit di dugal ci kasu bi yomb na leen loola yéen a kaay gi délibération nee na Abdoulaye Thomas Faye mi nga xam ne moo yor communication parti Pastef ca diwaanu Kaffrine teg nañu ko loxo section de recherche bu Thiès moo ko jàpp li ñu koy toppee lu jëm ci wàllum appel à l'insurrection maanaam woote ngir nag jéya fitna am pëccëxoo am ci réew mi loolee la ñu koy toppee ci page Facebook la ko binda yéen kaay gi di Libération moo xëy ñu ko xibaara yéen kaay gi di réew mi quotidien kàddu yi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadra nee na politiciens yi na leen leer ne moomu leen réew te fitna kenn waru koo andi ci moom bi ñaawlu na bu baax a baax manifestation yi nga xam ne moo xewoon Touba fan yi nga xam ne moom la ñu génn nee na dootuñu nangooti moo am yéen kaay gi du l'observateur la am mooy kilifa diine yi ñoom nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax giraawal yeeg njombe yi nga xam ne jamono ji moo am ci réew mi yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar nan ñu combat Sa Thiès rëg-rëg juróomi fan la ci weeru mars waaye nag bu ñu waxante dëgg Sa Thiès jamono ji ma ngi ci danger journal bi di sunu làmb ne na combat Zos ak Ada Fass taxawal nañu ko